jamono yi ñu tollu feebaru grippe ñu gën koo xam ci coronavirus mu ngi ci yenn réew yi ngir feggu ci ministère bi yore wérgu yaram ak jàppale askan wi moo leen di fàttali yii di faral di raxasu ak ndox ak saabu di sëqat ak it di tisooli ci mouchoir te boo ca noppee nga def ko ci biir mbalit moytu saafonte bi lii di yàpp ak it nen nañu koy togg ba mu ñor jàngoro bi nag